ay bés képp des ñu amal li nga xam xamee ni moo di màggal Touba loolu yi nag tax yenn ci borom kër yi di yeesalaat ak a jekkalaat yenn ci kër yi li ni mel daal ñu nemmeeku ci liggéeyu ouvrier yi ak itam mason yi. mais alhamdulilah cest xam nga màggal moom bu teroo. nit ñi dañuy jàpp ne li ci sëñ bi digle woon rek. ñëpp dañ ciy bëgg jaayante. ba kenn du leen ci man loolu loolooy waral waxtu bi na muy na muy gàttee. dañ ciy bëgg a dëxañ ci lu baree baree bare defaraat lépp mën a pare man cee yeesal dalal gan yeeg yooyu. léeg nag peinture yi ñuy doon li mu doon peinture de qualité day nekk yoo xamante ne rek ni mu gën a gaawee te gën a mucc ayib moo koy indi. yenn si liggéey yooyee sax du jaar yoon. ndax waxtu wa mu yelloog du ko am. li nu mel daal léeg-léeg mu indi jafe-jafe. Euh, bëti bàyyi nag li koy faral li faral li war indi daanu yi lu ci bëri da dul ci fondation ba. Mhm. bâtiment ci fondation la ñuy déparé. fañ koy programmé liñ ciy teg. ci semelle yi implantation semelle yooyee foofu lañ koy déparé ñu xam nga ni sama bâtiment kat nangami eh, nangami étage laa bëgg te ci kaw ñu xam yan semelle lañ war a déparé ci suuf loolu mooy téye bâtiment ci kaw mais fii nag boo gisee ñu koy def fii ci bëri dañuy programmer terrasse suñ defee terrasse dem ba ci biir ñu dañ tegaat benn ci kaw ñu tegaat ci kaw ñu leen tegaat mbaar ci kaw. gars yi dañuy profité ouvrier yi ñoom it dañuy yàkkamte dañuy bëgg a capp fii capp fee capp fee xam nga bu bi am problème quoi. loolu mooy waral bâtiment yu bari di am problème. kii di ab ferrailleur di wuyoo ci turu Habib ñaa moom jàpp ne rek lépp ci borom kër gi la bu joxee lu doy daañu ko defal liggéey bu mucc ayib. te boo ci defee fer bu baaxul te dem du diire daal daal di gaaw yàquwaat nga am ay problème yoo xam ne doo xam foo koy waxee tam xamoo ndax nit ñi nekk biir te wóorut ndax mën naa daanu lu nekk mën a jaa xew te boobaa tam yow ouvrier bi yow la ñuy wax daal ba ci mën di xew yow ouvrier bi da nga wax da ko wax borom kër gi ba mu ba mu kii ba ba pare. ba xam moom bu fekkee lu ñu def la te mënoo ci xamoo ci leneen bu fekkee mënoo koo liggéey nga bako mu seeti keneen. ak lu mu xat ci di ouvrier bi ak itam borom kër gi war nañu rek càmbaraat digle yi nga xamante ni nii ñii di waa urbanisme teg nañu ko te ñoom ñoo ñuy sax saasu su ne ñuy ñaxtu ñàkk dugal gi nga xam ni borom kër yi wala itam ñuy tabax defuñu ko seen service technique yi.